moo tax ci programme bi nga xam ne ñun am nañ ko tënk nañ ko ci juróomi ponk bés buñ ma falee maire sama action ci juróomi ponk laa koy teg bi ci njëkk mooy éducation formation employabilité des jeunes dinañ ci taxaw bu baax a baax ñaareel bi mooy gestion du cadre de vie moo xam ci wàllu aménagement moo xam ci wàllu assainissement moo xam ci wàllu sécurité la moo xam ci wàllu prise en charge des lieux de culte mm. kon bu ngeen ñi laajee ndox bee courant bi nuñ ciy def dama naan dinañ toog waxtaan ndax dana am pàcc boo xam ne mairie bi dina ko jën mu am pàcc boo xam ne également yéen a koy jën mais mu nekk d'un commun accord ñu xool nu ñuy def ci wàllu boobu mm. ñetteelu ponk bi ñu ne dinañu dimbale l'entrepreneuriat des femmes et des catégories socio-professionnelles kenn ku ne ca la nga ne mairie bi ñëw xool nu mu ciy jàppee pour mu mën a dem quatrième point bi c'est la santé et la prise en charge des personnes vulnérables et des personnes âgées cinquième point bi ñu ne c'est la culture c'est le sport et les loisirs juróomi ponk yooyu boo mënoo ci génn te fajoo yitte ak soxla waa Sicap te nag may wax ne juróomu ponk yooyu ku ko tënk ci programme dafa fekk da nga dugg kër par kër bi may wax dama koy bantu bu baax ndax bi élection yi commencé ba léegi walla bi ñu ko dëgmalee ba léegi ñenn ñi seen xel dafa naaw ñenn ñi dañu saali ñenn ñi dañuy gént rek di wax ndax ku jóg ñëw naan ministre dafa bëgg toj marché bi foofu waxu ku daanu kon damay bamtuwaat bu baax li ma wax juróomi ponk yi ma wax ñi ngi ko teg ci dugg biir Sicap 1 ba 6 extension Baraka kër par kër pour def le diagnostic socio-économique de cette commune xam nañ nit ñi ci li ñuy yëngu xam nañ ñi ciy locataire xam nañ ñi ciy propriétaire xam nañ ñi nga xam ne sax seen yi dañ ko teg ci buntu kër yi ndax dañuy fay walla fay ndax liggéey moo ñu ñor bi ñu demee ba toll fii ñu toll jël responsabilité ne dañu bëgg bokk ci liy jiite ak liy doxal réew mi jomb nañu toog askan wi nga xam ne ñoo bokk dëkk bokk di yeewandoor di wax naka sudul noonu ndax réew mi nag yemul ci tey dañu fi ne am fi njaboot fas yéene bés bu ñu demee ba magal suñu xel dal ci suñu njaboot gi ñu bàyyi gannaaw kon loolu boo ko bëggee def mu nekk sa xel mii di seet la ngay waxanteeg nit ñi seet la ngay jëflanteeg nit ñi kon li tax ma ne nañ ma woowee Zahra Inclusion Thiam mooy dama jàpp ne senegal ñun ñëpp a ko bokk kenn ku nekk da ci am wàll kenn ku nekk nguur gi dafa war a taxaw ci xool lan moo ci lu tegu nag ci rationalité lu jaadu lan moo jaadu ngir askan boo xoolee tey transport grève bi metti na ndax bi may ñëw maa ngi dégg ku ne dama yor sama liir war a dem faju ko xool programme de vaccination bi aw ma oto bu ma jub te xoolal temps bi ni mu mel ak ngelaw bi loolu metti la ci lii mais ñun loolu moo ñu fi bàyyi faj soxla askan bi ci wàll bu mu mënee nekk te li àdduna bi wane mooy que ne jamono yii ba fii ci kanam ñuy def képp ku bëgg taxawal soxla askan bi foog nga déglu ko foog nga xam lu mu bëgg foog nga seet lu ngeen ciy àndee liggéey mais kenn ku nekk da ci am wàll kon Rose yaag waa marché bi yëpp li ma leen mën a wax mooy bés bu ñu faloo mhm. dinañ àndandoor loxoog loxo mhm. seet suñu marché bii nga xam ne dafa nekk yitte ci kenn ku ne ci ñun nuñ koy gën a dëgërale nuñ koy gën a taxawalee nuñ koy gën a yaatu ba kenn ku ne la ngay liggéey waxuma la nga gis ci sa bopp benn waaye nga mën ci gis sa bopp ñaar ñett ba ñeent leneen li may wax na mooy wax nañ ma ci calebasse yi wax nañ ma ci organisation yi nga xam ne am na fi loolu tamit dinañ ko xool lu yaatal ko ndax wax nañ fi programme boo xam ne ñi ngi koy commencé déwén am na ci yenn moment yoo xam ne mën nañ jàppale ñenn ñi mais comme bor du am rak te bëgg naa ñu toog suñu priorité fii bi ma bëgg fasante marché liberté 6 mooy ñu xool naka la ñuy trouver une solution définitive ndax nag marché bi keroog bi coow li bëree fii moom laa doon tëjee ndax waxay indi wax xam nga njiitu réew mi président Macky Sall bu nit ñi xamoon la muy def yëpp foog naa dootuñu def élection sax dañ ko naan toogal rek nekk président ba coow li bëree ci marché bii ba mu woote laajte lu xew ndax marché c'est une gestion déconcentrée marché c'est une gestion déconcentrée bi état bi jëlee ay compétence am transféré ko ay mairie ñooñu ñoo yor lépp loo xam ne dafay dox fii muy école primaire yi muy yenn marché yeeg yenn lieu public yeeg et cetera kon moom ci boppam bi mu toogee ba dégg coow li bari mënoon na ne responsabilité mairie bi mais dafa ne naka la mën a dëgmalee feet nit ñi di dandangi pour njaboot nga naan da toj la nga xam ne moo leen di dimbale pour ñu suturlu bu ma ko dégg est-ce que dégg ngeen ko li tax marché bi nekk fi ba ba léegi bu doon dogalu mairie bi rek dem na yoon waaye nag ndokk yàlla bi nga xamee ni ñun ñëpp am nañ kilifa goo xam ne bàyyi nañu xel mi ngi dawal xolu yërmande mais comme ni ma ko waxee ñun ñi nga xam ne ñoo nar a séq mbir mi le 23 janvier incha allah ñu joxante loxo ñu toog te lépp loo xam ne war nañ ko def fii dinañ ci àndandoo ñoo ciy déggoo bés bu marché bi daanoo na ngeen xam ne ñoo ko déggandoo bés bu taxawee tamit ñoo ko déggandoo te comme ni ma wax rek benn engagement man laa mën a jël ndax du ma ne dinaa ci def lii du ma ci def lii engagement bi ma mën a jël mooy lépp lu ñuy def ci marché bi seen loxo sama loxo. ñu defandoo maa ngi leen euh, jafe-jafe marché bi mooy yéen ñëpp dégg ngeen ko depuis Korité ñu ngi ci jafe-jafe ñu ngi xeex ak mairie bi pour ñu bañ a yàq suñu liggéey ndaxte marché bi ay jeunes a fi nekk ay jigéen a fi nekk ay jaboot a fi nekk ni ngeen ko déggee ni ministre waxee 400 cantines 95 tablier ak 10 jaaykatu ginaar ak jaaykatu beñe yeeg yooyook yooyu ñooñu nga xëy rek nga bugg leen xañ seen teraanga ak seen sutura te tegoo dara seen loxo loolu moom lañ dul nangu te loolu moo nekkoon suñu komba ak euh, maire bi fi nekkoon di ñaan yàlla nag mu indil ñu maire ba nga xam ne moom mooy résoudre problème yooyu ñu mun a liggéey suñu liggéey paisiblement ndaxte liggéeykat jàmm ko jikk mais depuis Korité ba léegi nekkuñu si jàmm donc dafa am rumeur yu ñu déggoon il fallait que li ñuy wax tungu ne di teew ñu nataal ñu laaj ko madame la ministre moom tamit indil nañu ay leeral si li nga xam ne moom lañ ko laaj. mooy que nee na moom bu gañewee mairie bi lépp lu muy def si marché bi du ko def moom dong dinañu woo muy ñi fi loué muy ñi fi liggéey mii ñi fi am cantine ñun ñëpp ñu toog concerté wu xal xool lan la ñuy def si marché bi ndaxte moom gis na mbalit bi de nee na lu muy njëkk a def na mooy dindi mbalit bi nga xam ne mu ñuy parce que nit du dëkk ak mbalit te parti bi nga xam ne toj nañ ko depuis 2019 ay mbalit a fa nekk xet bi mu ngi ñuy bëgg a rey te mënuñu si dara douche yi tamit moom gis na ko xam ne ne douche yi wax dëgg yàlla waroon na fee gën a set donc wax nañu li nga xam ne moom la programme am wax nañu cinq point poñ yi nga xam ne moom la bëgg wax nañu aussi li mu namm si marché bi ñun tamit déglu nañ ko jafe-jafe marché bi fu ndox amul jafe-jafe am na fa fu euh, naka canalisation amul marché ñaata nit jafe-jafe am na fa parce que ndox yi dañ koy tuur aux alentours donc jafe-jafe bëri na ci marché bi te loolu dama foogoon ne loolu liggéeyu maire yi la kon ñi fi nekkoon ñu seen liggéey donc ñu ngi ñaan yàlla mu indil ñu ka nga xam ne lépp li nga xam ne moo fi jafe-jafe dinañ ko reda euh, éradiquer